soxna Binta parce que bu ñu nee euh, voie bi état du village ça pose problème parce que dajewuñu mm. bokkuñu ñu ligne bu ñu daw. Mm. kii mi ngi jaar fii ñii ñu ngi jaar fële. Mm. kon yaakaar naa ni euh, war nañoo mën a dem seen yoon ku nekk doo daje kenn. bi ci des mooy mu euh, ñëwee ci wàllum paas yi tata yi moo tane BRT bi di omo fekk si tata sax ñoom yokk nañu mais yow li nga li nga li nga mën a fay ci mun mënu ko fay ci BRT bi ñu waxante dëgg. parce que man bu jógee Colobane wàcc fi rek téeméer laa fay. Mhm. <laughs> téeméer laa fay. te war na ma fay fan cent franc wala cent cinquante nga fay téeméer xam nga loolu diggante bii nga fay téeméer xam nga dafa saf. léegi man su ma ko amee ki keneen mën na ko bañ am parce que am na koo xam ne cent cinquante la am yu mën a fay aller tout wala cent soixante quinze mhm. yoo xam ne moom la mën a fay ci tata bi mhm. kon léegi tey ji boo nee dañoo tracé boobu la mën a jaar parce que am na ci yoo xam ne bette mënu fa jaar am na secteur am tata bi moo fa mën a jaar tata ñoom ñuy mm-hmm. dugg ci koñ yi ñoom ñu la mën a wàcc fen ndeem sax ndeem sax ñoom euh, yokk nañ seen paas yi waaye di au moins fu a dugg berte mënu faa dugg li nga mën a fay koo fay ci berte bi mm-hmm. li nga mën baax mënoo koo fay ci berte bi mm-hmm. parce que boo xool nag tataay tamit war nañoo mën a xoolaat seen paas fu mu nekk ñu delloo ko fa def ni Dakar dem dikk wala ñu def ni yàgg baax yi loolu mooy mbir mi mais nañu nañu nañu Ahmed yaa may rëcc yàgg baax yàgg baax man yàgg baax laay dugg de euh, nañu nañu xam ni dañu war dañu war a mën a jàppale askan bi si jàppale askan bi mooy gaa yi ay góorgóor la ñu nañu bàyyi ku ci nekk jaar sa tracé xataluñ kenn ndax BRT bi ak tataay dajewuñu bokkuñu benn ligne ñuy daw mhm. kii mi ngi daw ci kaw ci digg bi ñii ngi jaar ci ñaari voies yi mhm. soo bëggee arrêté foofu fi nga xam ne mooy tataay da fay arrêté Dakar dem di kii mhm. nañu wax dëgg. ndax fii tataay jaar fii la Dakar bii da da Dakar dem dikk jaar. fi la euh, particulier yi jaar. fi nga xam ne fi la super yi jaar parfois. Mm. kon soo bëggee ni Dakar euh, tataay duñ jaar ci euh, fi nga xam ne fi la BRT bi jaar. Mm. problème aussi indi ngay indi mooy kon da ngay obligé ni kon dakaar dem dikk ne jaar ci yoonu bopp. Mm. ah nañu waxante dëgg ndax ñëpp lañu jaar te loolu am benn impact sur société parce que reportage ba nga xamal MT ba nga xam ne déglu nañu ko. Hmm. Euh, askan bi wax ñoom ñu ni euh, amuñu xaalis ba nga xam ne mën nañu ko fay si BRT. Hmm, hmm, amuñu ko amuñu ko parce que bu ñu amee daal di dem. parce que donc te BRT bi da ngay fay 500. mun waaye xam nga xam nga xam nga ne mënoo ni mënoo yor sa benn téeméer bëgg a xëy Dakar boo defee aller boo yor dara nooy def ba ñibbisi. nooy day bërëb da ngay koloo koloo ah. doit être roi. waaw te moom mooy roi bi. Ah. parce que man sama téeméer bi laa yor nag wax dëgg fa yàlla su ma ci passé 250 dem. Dakar sinon boo ko bëggee pas 250 muy jël yeneen aussi day. non yeneen voies boobu day perdre temps day yokkat par perdre perdre temps la boo xam temps la boo xam da nga koy perdre sax te fa nga jëm bu waree xëy liggéey bëgg ci tam bëgg a jaar fii wëri wëri wëri te berte modernisation du su boobaa c'est bien mais il faut que aussi ñu bañ a sonal wax non bu ñu demee nag bay bay interdit tata yi foofu nañ interdit tata yi kii ah guerre guerraat ak état beeg yooyu waaw déedéet suñu demee sonn si guerre gi jàmm lañ bëgg nag wax dëgg ñaara mën a am rek bis bu demee bañ tata yi duñ fi da jaarate kon Dakar dem dikk bu ñu jaarate fi berte di jaar